asalaamaaleykum waa mbokki làmb di nuy ku nekk si tur ak sant tey ñu am mbégte kontaan ah mbokki wasaare làmb mbokki Dakar midi ñu dalal ki nga xamante ne tey mooy Assane Assane roo ñu gënoon ko xam nag mu nekkoon coach bi nga xamante ne moo nekkoon équipe Papa Kane donc xale yi fa nekk ñu fas yéene waxtaan nag moom tey li jëm si wàllum làmb Assane ñu ngi lay nuyu. Ah, Abdou maa lay fay maa ngi fay ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu sama boy yi ay Omar ay Ndiaye maay boy maay nuyu ñëpp parce que fii ñu defee place mooy seen place quoi ay baax lañ am ñu amuñ benn problème maay nuyu Assane ñu ñëw ju ci li nga xamante ne mooy ci côté làmb jamono ji gis nañ làmb jamono ji ñu ñu toll ah arène nationale grand combat yi mag ya fa yëpp mën ñu fexe ba boobu ak léegi victoire am ci depuis ci combat yi la ki nga xamante ne la dëgër Boy Niang ci combat yi nga am na fi yëpp ay combat yu mag cinq na fa mën ñu fexe ba am ci làmb yooyu loolu ban jàngat nga ciy def non maanaam jàngat bi ma ci gis mooy yenn yi dafa CNG la benn bi si mbëri la yenn mbëri dañuy def responsabilité arbitre yi dañuy juum teguñu ko fi ñu ko war a teg quoi parce que avertissement yi dafa bari trop trop trop trop ñaari góor bu ñu leen fayee munin làmb day fi mu toll foo xam jom la ak fulla ak fayda waaye du ay xel mu neex te gaay yi dañuy bëgg a fayoo ko million di ko liggéeyante ci xel mu neex loolu mënut a nekk non non mënu nekk mënu nekk làmb moom day am fu muy toll du problème mu ay xel technique jom mooy indi ak ngar mi parce que làmb affaire de buur la. waaye bu am na làmb fooy toog mu yow mbëri bu am na fooy toll soo ko bëggee teg ci calcul kee ko ci calcul nii rek la mujjee ak avertissement yi dul jeex te mbëri ñoo xaw a bëgg lu yomb nag ñoo xaw bëgg lu yomb de bëgg na lu yomb trop waaye lamba ji moom man li ma ci gis moom il faut ñu defaraat ko mbëri il faut ñu changer seen doxin pour promoteurs yi xool mbëri ni boole CNG bi xoolaat seen ba taxawaay. doo problème ay international lañ ko ndëppal ak duñ ko ndëppal mbëri la ñu war a ndëppal ñoom mbëri ñoo ñoo ñoo ñu war a ndëppal ñoo ay rab parce que léegi seen làmb dañ ko bëgg a teg ci wax te sport du wax sport jëf la sport santul théorie pratique la tudd mooy jëf waaye bu fekkee wax kese kese kese man bu ma neexee suba ma nekk mbër mën naa signature fecc bu ñëwee ma arrière jox ma ci avertissement ma ñibbi dem nooy cent millions du problème mu CNG de mbëri seen bopp dañuy am mbëri yomb dañoo bëgg lu yomb li li ma leen ma mën a xamal mooy doole bu nekkul si yow sa fit du yokk doole boo ko amee mbër bu entraîné ba ba entraîné ba am doole lekk ba suur day neex a ñaanal te day fit waaye mbër su ñëwee ba ci biir géew sant lam daan sant santir ko day ragal te bu ragalee day sikki sàkk te gis nga góor ba amee doole buy dox si mbedd sax da da nga gis muy muy fippu moo xarum yàlla yam rek xar moo yafal six mois mu lekk beleeg bësi danga nga gis mu commencé mbëkke parce que la yëg la bu la nee ba yëgatoo la nga yëg nag da nga ñëw ba ci làmb di hésité hésité gu yëpp loolu kese la du leneen. ñu ñëw ci combat bi nga xamante ne moo fi am barki démb mooy combat diggante Balla Gaye Bombardier combat boobu Assane ñu gis ki nga xamante ne mooy Balla Gaye la mu bëre ci làmb jooju noon ñu gis Balla tamit ci ak li nga xamante ne côté entourage bi nga xamante ne ñooy topp Balla Gaye gis ne ñaa xarañ loo gis ku ci mel ne Ketchup ay ñoom Aziz Ndiaye tey ñoom ñëpp ñu ànd ak ki nga ne mooy Balla Gaye ñëw ci làmb jooju noonu tey ban jàngat ngay def ci combat boobu premièrement Balla Gaye amul kilifa ndax nan amul kilifa ñaa xarañ lu mu mënul Balla lu mu a yokkal lan la ko mën a ci làmb Ahmed Aïdara lan la mën yokkal Balla Gaye ci làmb lan la ko mën a apporter Aziz Ndiaye xaw ma Alain njaay ñooñ ñooñu seen groupe njaay Ndiaye yooyu leen rek lañ mën a yokkal Balla gay mën nañu wut ay gàllaaj mën nañu wut ay mystique waaye mënuñu ko yokkoo leen ci làmb tey ñu ànd ak Balla Baboy fii ba Balla Gaye keroog à part Baboy kan moo ci mën a taxaw ne la Balla Gaye làmb ji compliqué ñii ngay def ak ñii ak ñii nii. mais gis nañ ba comment bi dem sañ-sañ lay wane. ndax boroom xaalis la waaye du xam-xam Aziz Ndiaye lan la Aziz Ndiaye daa xam droite bu jub xamul xam xamul bët xamul noojo xamul galgal xamul xaajtar bi kon kon lan la ko mën a koo apporter foofu lu surtout sur le plan mystique ak ak million loolu rek la mën a apporter Balla Gaye waaye sur le plan technique physique musculation contact coffre endurance Aziz Ndiaye xamul loolu te nit nag bu fekkee ne tanewu la li olof naan garab bu la sutu du la may bu dee ci côté sport a Ndiaye mënul mënul may ker Balla Gaye waaye bu dee côté million nag ak côté musique mën na ko apporter dara parce que fu yàlla mën ta àgg xaalis mën na fa àgg loolu a la ko Aziz Ndiaye mën a Balla nag il faut mu xaat boppam ci comme naan Balla Gaye boo Balla mi fi nekkoon ak ak mi ngi si keroog lan la am na différence wala bu mag Balla Gaye fi ni bu doon bëtiri man la vidd na gis nga Balla Gaye première bi muy bëree ak daam jour boobu la Ndongo Lo di décédé stade Amadou ah, stade Amadou Barry grand combat bi laay gaynde la woon dem si àll si MC Lida yàlla na ko yàlla xaraajal na sama kanam la jour boobu laa taxaw Balla Gaye bëree jàpp Dame Kandji duma ko du muy métti daan ko Dame moo ko dem si àll ak Baboy ñu sol ay tëré militaire may leen bi mën na doon roi des arènes bu faas na may wax xamoo làmb jour guddi googu la Ndongo Lo gaañ stade Amadou Barry promoteur baa nga dëkkoon stade ah, stade amitié ci miir bi loolu la yoroon magasin waaye xam man dafa am réalité boo xam dañ moo ko jàngal ci sport man masse musculaire laa xam waa géej waa géej waaye ko doon yuuxoo topp ko yuuxu naan Balla Gaye Balla gay Balla Gaye Balla Gaye ñoo rey Balla Gaye ñoo ko teg lii parce que dix jours cinquante kilos yàlla bindul fenn at nit ku mel noonu ci àdduna fukki fan cinquante kilos nga bëre Yékini dix jours nga dem États-Unis cinquante kilo ah li nga def sa yaram bi. l'asper l'asper boo ko jëndee juróomi dërëm ñu jaay la meetar ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bu yàggee di nga xëcc di dellu du Balla Gaye du problème mu gàllaaj du problème mu bëri baa nga fa du problème mu yooyu xam nga lan mooy problème am. muscle bi moo laase moo bàyyi diggante cinq ans yi cinq gis nga gémmin bu waxul dëgg rek day fet cinq ans ñu génn nii Balla li mu feree ci yaramam mat na soixante millions fee mi dem Paris ne. xam lu mu fay liggéey loolu mooy dégressif dégressif lañ koy defal comme yaram bu mbaq ñu conservé ko mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk glace bu glace bu bees te gis nga am na looy def si yaram bis bu effet secondaire bi ñëwee la la yàlla joxoon ak la nga moomoon lépp lay bore yëpp yàq bala ngay cinq ans ngi nii benn victoire la muy mut loolu la fi daal xoolal te même état bi Balla Gaye bi mu summi dem boo xoolee naq bi lang nga xool loxo yi triceps amul amul biceps amul épaule amul trapèze dóoboo daa maase kiwis da nga koy xool xam ni kii des na du physique du condition du dara ba pare Balla Balla Gaye li mu jàppee Bombardier li mu jàppoon Bombardier ci moom la nekk Bombardier il est âgé de quarante cinq ans presque masse musculaire la da ngay xool yaram bi lépp jàmm te mu moom li mu war a bëri la bëre maa la daan yaa soxla damay taxaw xaar la Bombardier xanaa xamoon ne kafe yoo la bu jengee day këpp waaye bu taxawee rek ku dal ci kawam wàcc. lu leer laa lay wax ba pare Balla Gaye nooy bëreeg mu ponkal moo xam yow mënoo koo yëngal nga ne ko kaayo mboot la. xanaa xanaa sa doo ko wax kaayo mboot la. mboot moom koo téléphoné. ay mboot ma daa ñorut la ku ci mboot cuune nga kaayo mboot la bu la xale bee nga naaw moo tax da koo mu naaw. si sa ndur dañuy jàpp jël la action bi ci biir géew bi la commencé dem ci bitti avertissement boobu si sa ndur dañuy jàpp léegi daal Balla Gaye bu bëggee baax fa mu liggéey de. ci comme nan comme nan defee ci làmb. dernier tiers moo ko defee ci làmb. parce que gis ngeen nii ma ko gisee nii dynamique bi moom ma gisee nii booy ñaa sax bu ci duggee booy ñaa mën na koo daan. waaw parce que moom euh, boo xoolee euh, jamono ji passé ginnaaw ci waa kër euh, Aziz Ndiaye si boppam moom mu ngi doon wax ne kat Boy Niang balaa mu bë Balla Gaye uniforme ama yeneen i tam mais daane ñoom am amee kii lañ leen daane si seen défaite si ay avertissement lañ amee défaite te combat boobu noonu comme actuellement Boy Niang Balla Gaye mais kenn mëntu koo bañ xam nga booy Niang mbër muy dóoree gauche droite doo ko daan mbër muy sànni gauche droite doo ko daan te Balla Gaye gauche droite lay xeexe te boo Niang da lay appel droite reculer nga sànni ko si gauche sànni ko si droite mu aspiral danay lay sàcc te Balla Gaye bu sànnee gauche day sànni droite démb sànni na benn korosé gauche sànni benn korosé droite boo mbër jee waaf tëgg ko korosé fa la làmb jee jeexe te Balla Gaye ba pare Balla Gaye bëgg na xeex waaye boo ko tuusee mu nelaw boo ko tuusee ci làmb masuwaar boo ko lambee lañ ko waxoon ci laaj bañ lañ ko conseillé woon ci kër koy fàtte. lu leer laa lay wax saa boo ko duuree yàq làmbam bare dafa tax dafa am habitude bu nekk ci moom mbër moom gëdd rek boo dawul rek day am problème parce que mbër dañ ko tàmmal ku mu gëdd nga daw. Balla Gaye mbër yi mu bëreel yëpp ku ci gëdd da ngaa daw. mais keroon li mu bëree loolu loolu waroon bëri ak Bombardier wala. Bombardier combat bi waru am ñeenti minutes mais Bombardier dafa téye boppam gis ni Balla Gaye moo attaqué mooy def lu bari. Balla Gaye mbër boo koy songu doo ñëw tout droit ci aksam da nga koy zigzag sa tànk pied gauche bi day def nii di def nii ba pare Balla Gaye di xeex daa waroon xeex ak moom gauche ba di ko zigzag waaye mbër kenn du ko attaqué tout droit ci axe da lay ëmb bëri boobu man pour man xeex bu gaaw la waroon na xeex daw sàcc ko man bi mu taxawee rek. laa leen Balla Gaye mi parewul parce que mbër mu naan wax ñaari minutes laa may wala mu ne une minute trente arbitre souffle muy sikki sàkka kon lam daan yëg yëgatu ko Balla Gaye pire ba non non Balla Gaye ma la mën a xamal mooy bu doon ataaya naan na lëwal naan na deuxième mu ngi ci troisième bi troisième bi daal mu ngi commencé xor mbet ah loolu laa gis. Balla Gaye mi ngi gis est-ce na daan daan Boy Niang wala mën na daan Gris Bordeaux wala mën na daan Eumeu Sène Balla Gaye mi. a xamal mooy. Gris Bordeaux. Boy Niang. Eumeu Sène. xanaa ku ñàkk fayda ku gëmul sa bopp Balla Gaye mën na la daan. Balla Gaye bu ku ci daan ci ñett ñooñu rek yaa gëmul sa bopp. parce que ñee ko gën a pare. xam nga oto buy dem tuuba ñu lay réparé di lay waat. ak oto bu oto bu wow kong bu bees pull. buñ tegee ci autoroute bi. parce que oto bi ñu réparé bu njëkkee àgg Touba rek chauffeur ba la waaye du oto ba akay ah, noonu la demee nag instant bi ñoom booy ñaa ñoo gën a pare ñoo ëmb seen ñoo gën a pare léegi li si làmb boobu mooy fulla ak fayda waaye fulla ak fayda buñ ko amul bala bala nga dalay waaye lo parce que waga la bala ngay dalay napp ci boo ruuxee mu waaxul ñibbi waaye boo dëgalee sa bopp ñeme boo koy bu la dóoree boo dóoree mu pare ñemul mais combat bi gis nañ li nga xamante ne ñu bari nañ Balla Gaye manqué na ci contact amu ci contact parce que ba ci waa école am ne ba mu jëlee avance bi ak léegi jaarul sax li nga xamante ne mooy seen ci école bi pour ñu mën a gis ki nga ne mooy Balla Gaye ñu mën a liggéey ak seen mbër est-ce que tamit lamb ji Balla Gaye amutoon fu mu ko la contact sax waaye Balla defee dafay indiwul dara rien indiwu ko du physique bu baax du koofur bu baax du muscle bu baax ay daal indi ko fa yu bari moom sol na yëre summi sangu siwo sangu sangu lamb du loolu lamb physique la musculation contact xeex ak calcul ak technique man loolu laa jàng waaye sangoo sangoo sangoo sangoo nga jàpp mbër di commencé appat na juum nga. 100 pour cent géej waay bi ñu doon gis ay ñoom la de guerre ah ñoom Alioune Seye ñëpp doon topp ci ginnaaw Balla gi mais combat bi seen ñëpp dafa mel ne xaw ma dañ ne ñëwuñu wala seen dafa dàq loolu wala ñu ne écarté ci combat bi. dañoo gëmul 100 pour cent bi. 100 pour cent yi gars yi wax ko ci làmmiñ la yam 100 pour cent ñu ko waxee waxee waxee wuñ ko stade ba 100 pour cent mooy Balla Gaye am na combat mbëri poore génn géejewaay ñu ci benn ruq tey guy gi Alioune Seye 2 les 2 ñeneen ak ñeneen Sa Thiès ñooñu ak groupe boobu noonu buñ dajale ak Balla Gaye ci benn ruq buñ contacté ak moom weer lu lum ñàkk mën na ko am waaye 100 pour cent boo am ci làmmiñ la yam ku ne sa ruq nga nekk naan 100 cent géejewaay du ku ne si intérêt personnel ngay dox dañuy rafetal nii rek à ah, 100 pour cent bi moom du 100 pour cent pour ñu dem stade déedéet 100 pour cent bi mooy bu combat bi taxawee mbër nañ dem physique mbër nañ dem contact mbër nañ dem musculation 100 pour cent parcelle moo gën a dëgër jamono bi ñu toll nii bu ñoom waa parcelle moom ñoom laa gën a gis seen bos dëgër na parce que boo xoolee Modou Lo Papa Sow Franc Goro Sock Garga Junior ñooñu rek doy na làmb Balla Gaye ni ci fonde li nga xamante ne tey mooy père Balla mi fi jógee yàlla ko yàlla yërëm ak baay ji ak yeneen yeneen est ce que loolu tamit manqué ko ci làmb ji si côté li mu doon bëree ci lu bari. non non loolu ci dara. Balla Gaye bëri na six combats wala sept combats yoo xam ne xam nit ñi xamuñu doomu Double Less la man mën naa la compter six combats yoo xam ne Balla Gaye six victoire la tegle wala set yoo xam ne Double Less taxawul ci géew bi. Double Less bi ko gaa yi xamee yàggul Balla Gaye daam kaañ da ngaa gis Double Less bala Gaye Samba bi da ngaa gis Double Less Balla Gaye Mbaye Diouf da ngaa gis Double kenn la ci mujjee jee Double Less Balla Gaye commencé fay ko cinquante millions soixante millions xam nga la mooy mbër la nga daan def daaw mu jik la moom kay defaat. mbër la la la may ndam 2010 sëriñ nga sëriñ la daan ñaanal ngay am ndam ba bala kenn xam ñoom ngay jàpp 2022 entraînement ya nga doon def 2010 2011 2006 ngay am ndam moom ngay defaat. sa xarit yi la doon jàppale ba dara doonul dara ñoom ngay àndaat. waaw nga gis nañ parce que ne ñu bari ñu ko doon sotti gàllaaj bi yoon ñu bari dafa mel ne gisuñu leen sax si géew gi parce que ba xoolee ñu Aziz Ndiaye ñoom ñoo koy sotti baree baree bari danañ dafa am lu bari bari dafa desoon ci combat xam nga bëri butéel bëri siwo xam la ngay sangoo ko gën bari na siwo yu mbër sangoo nii ci biir làmb yi du siwoy gàllaaj te gaa yi xamuñu mbër mu mën làmb sëriñ bu mën lamb ak sëriñu Bayra Ndiaye sëriñu Bayra Ndiaye dafa am ak sëriñu làmb man Balla Gaye 2006 laa ko xam Modou Lo 2006 ñu ñu ñu dee ak man ci benn kër problème mu Balla Gaye Lo du problème mu dara problème mu sëriñ la ñoom ñaar boobu 40 mille lañ leen di fay ku ne benn tubay nga am benn yére ba ku la dégg million waaye mbër moo nekk jikko boo xam ni mbëriñ ña mu tàmbalee l'an 2000 du ànd ak ñoom fi 2022 te dafa am doomu aadama yoo xam bës la ñuy wut kooku tey ñaaxarañ loo bës lay wut ay Aïdara bës lay wut ñaa la la mën a lentil Balla Gaye lan la ko mën a wutal loolu bës ñaa dañu buusee gars la buuse la mi nu bëy la yor day wax moo guy gi la woon waaw lan woon fantasiro parce que nit bu fekkee da ngaa bëgg jël tànk bi teg ko Ndakaaru jël tànk bee teg ko Grand Yoff ba yàggee seytaane ngay doon nit da ngay nekk benn nit ñu xam ne ñu xam laa kii guy gi seetaan naa ko bapat maa ko njëkk yóbbu gabaar mbapat fay ko trente mille gabaar daan ko deux voies liberté six xam naa guy gi nit ku gëm boppam la waaye nit bu fekkee da ngaa bëgg a gauche suba droite ah gars yi ni lay daw man ay buuse yi gëmuma leen buzz la ñuy wut nitu buzz lañ ñoom nitu rajo rajo télé la ñu. ñoom daal dañuy wax ci rajo yi nii di coow li leen topp nii déedéet du noonu nit da ngay waaye da ngay dañ lay dañ lay xam ak kenn yow mu yàgg moom ba yow mal xiyaar boo ko bàyyee nga toog jàpp sa njàmbur. lan ngay wax Balla Gaye ci combat yi ci kanam bu si bu bu koy gagné lan la war a defaraat. il faut reculer première sauté waaw ah, kuy dem ba xamatoo fa dem da ngay dellu si ginnaaw pour mën a tëbaat il faut mu defar cummi kaayam mu xoolaat mu xoolaat yaramam. staff technique bi mu defaraat ko defaraat encadrement bi ku nekk li nga xam ne yow moom mooy seen métier moom ko jàng nga yam foofu. na wuti man su doon Balla Gaye lu ma doon conseil en tant que Balla Gaye nañu jëli Mbaye Samb Mbaye Samb bi ñu formé ko Balla Gaye père Mbaye mu ngi foofu man Mbaye Samb def naa huit ans ci benn saal Mbaye Samb Mbaye Tine ak Jigo bi nga xam moo yor moo yor ëmma seen entraîneur am ñëpp sama ñoom ñoom ma yar boobu ñeen dem si yàlla si yàlla ko yàlla xare àjjana mooñ mooñ doon formé man ne fekk fa grand yooyu noonu ak jimboor yi man yàgg naa ci biir gone yi biir grand yi man su Diop mii dama taxaw ba tay muy jàngale bëri may xool 95 ba 2022 maa ngi ci sport nit xamu fi lu ma xamul waaye nag àdduna sens la. mais booy dafa am lu leen réer ci Bombardier ngaaka lañ ko jàpp parce que Yékini waxoon na ko nee na euh, Balla Gaye wutuñ jël Bombardier. Mm-hmm. Euh, Bécaye ne ko lan moo tax mu ne ko jàppee ngaaka te du parce que bëri Balla Bombardier laaj na doole ju bari. laaj na mystique bu bëree baree bëri te booy ñu ko teg nga. doole di ko daan commentaire naa ko ci benn fi benn ci site bi nekk ci Instagram bi ñu naan ko suñu làmb. Balla Gaye naan ko boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la ma bind ne bala gay boo bëggee ko napp demal nga napp Mouhamed Sakho sa doom. <laughs> Bombardier kenn du ko napp du ay dóoru koy daan du ay doolee koy daan Bombardier nagu mbuur la xel moo koy daan. te Bombardier combat yi ñu ko daan yëpp moo daan boppam parce que ponkal du jug bu jógee day woyef ay Bombardier bu naagoo rek daagu taxaw suuli tànkam da lay dóor ba da lay dóor ba rey la Balla la moom si combat bii nii li mu jàppee Bombardier Bombardier ku wayut la benn dof la benn ngaaka la xamul dara li ko Bombardier indil dafa bett Balla Gaye parce que ñëpp dañoo jàpp ne Bombardier da nga koy cuq ci combat bi rek mu jireeku Bombardier ñëw suul na rek taxaw samp ay poto. Balla Gaye mu suul Balla Gaye day te combat bii nii combat MMA bu Bombardier moo defar combat bi. waaw parce que combat ba Bombardier ak bi MMA bi waaj da ko appel gauche Bombardier tëb sànni crochet gauche droite waaj def recul aspiré ko remise ko mu wàcc. xam nga arrêt gauche kenn du ko dóor ku taxaw lu ñu wax arrêt mooy lan ci olof mooy taxawal kon ku ñëwul ko noo ko ko dóoree arrêt mooy kuy mam di ñëw da aspire aspiré mbër mi da nga koy cokkaas bu ne bërit ñu ne ko tàkk mu mu feree ne noonu la ko tubaab bi def da ko appel Bombardier mam sànni gauche sànni droite waa ji def recul aspiré ko dóor ko droite bàyyi ko mu wàcc. est-ce que Balla Gaye sukkandiku ci loolu. Balla Gaye la gis. Bombardier ñëw taxaw ñëw indi tekk bi. Mm-hmm. tekk boobu nag moo yàq boo yàqal ki nu Balla Gaye parce que boo xoolee booy yi fi yoo xam yëpp boobu Bombardier dana na dëpp muy Modou Lo Balla Gaye ñaari yoon. yii Bombardier amul leen luñ koy wax ci làmb lu di direekul jàppal doog xeex parce que 140 kilos la muscule loxo bi diis na te boo ko jàppee mënoo koo manipuler kooku lu koy daan xel ak gaaw. Eumeu Sène da koo aspiré. da koo appel droite. muy jóg maam mu ko daa sànni crosse gauche sànni crosse droite ama nuur ci zone bi. muy làmb ama rocceeku def dafa appi ngooñ ma tuuru. mu kat appi na. xam <laughs> nga ngooñ la boo avancé rek wàcc. waaye ba Gaye combat bi innocent la ci. maanaam commune dafa topp communication bi trop. jàpp na ne pataas bu tëb pataas bu nëb la. wax na wax wax Bombardier ne ne ko sakkanal sa énergie. man du dawal góor. bu ma du ma arriéral góor waaye Balla Gaye dégluwul après lay comprendre dafa am sens am na fu waaj a duuree cross mu jéng. waajee ko xool waaye bu ko dolli woon mu mu këpp. géej way bu ñu bëggee champion il faut ñu wax dëgg Aziz injaay mënul apporter Balla Gaye leen ci làmb lu xaalis ak mystique. Aziz Ndiaye lan la mën a conseiller Balla Gaye ci làmb. loolu samay million laa yor wuti sëriñ ba Gaye combat bi waru am ñaari minutes bu bëggoon am ba pare liggéeyul liggéeyul doole ju daan du daan Balla lu daan Bombardier man gis naa mbër sumeeku physiquement ma xool li commencé mu lay ba trapèze bi du abdominaux du pectoraux du bara du triceps du dos du abdominaux du dara daa ñëw rek mel ni benn mbuusu ndox kon millions yi ñu si yóbbu ko France fee nee xaw ma nu mu tudd nu dëkk ba tudd. initiative ay jaaxaan géeju géej weeg yi amul lu mën ak di din dinu tiwaan pël yaram bu amee salte dañ koy raxas te man gëm naa ne Balla Gaye mii làmbam neex de. seen gestion yi mu bëgg a jël si yi nga xam ne dañuy téye seen bopp parce boo xoolee nag Balla Gaye bëre na bëre bi parce que mais Bombardier attaque amul benn attaque bu mu def dafa téye boppam rek ci combat bi. déedéet combat bi du problème décision Bombardier dafa téye boppam c'est normal làmb dañ koy man dañ laa fay fay ma. Bombardier moo daan Balla Gaye moo bëgg revanche ñëpp xam nañu ne Bombardier mii bu yëngoo mooy daan boppam Bombardier daa war a taxaw yéen eh, xale yaa communiqué ne bu xeexee di nga ko duma su bëree di ko daan demal bëre duma ko daan duma ko daan ko waaye yëngal loo mënta loo yëngal loo attunu day daal day jeexal doole <laughs> te Bombardier neexul yëngal yàlla moo bind nit ñi te yemuñu xam nga tey sport. mi xari mel xari xari ci dëkk bi noonu la nit ñi mel mbër di jàmm xam ne ay pël-pël lañu ñii ay talaa biir ñii ay laadum ñii ay bali baali parce que doole mu ngi ci yàq yi waa kër Double Less yàlla bind leen ñu nekk ay mbër yoo xam dañoo war a am biir am taat am lex déedéet Balla Gaye dafa yàkkamti àddunaam dafa lekk li mu war a lekk ñetti fan fàtte na lundi dimanche ba bi mu commencé dem États-Unis di ngandee la commencé dugal boobam ci kàmb parce que boobu Sénégal ñoom bu ñu gis luy dem ñu kar ko déedéet da lay bàyyi ngay tëjëx tëjëx yi rek parce que comme que yaa ngi am victoire rek duñ gis a defu. bu defet commencé ñëw na ku ne di wax waaye man toogoon naa géej yooyu may leen seen mbër mii jamono gi ñëw bu deewut dana fajoo ay millions parce que fi ma ko teg mooy dix jours cinquante kilos gis nga Bombardier ki ko dóor moo ko mag. téeméer yoon sax. léegi muscle Bombardier ak muscle waa ji ban moo gën a baax. waaye mission baax a baax parce que tubaab dañuy dañuy liggéey physique di lakk seen gerees mbëru Sénégal yëpp boo leen boo leen def benn catalogue ñëpp a nuroo yaram mbëru Sénégal yëpp laa wax Tyson moo ci gën a yaram bi muy bëree ba ni mu bàyyee saa bu sumi ko da ngay xam ni kii dafa bëgg boppam sport tamit dafa man damaa gëm sport masse man daal li ma gëm mooy masse musculaire waaw jërëjëf ku mel ni Boy Niang ak Sa Thiès ak Modou Lo ñoo fi tane instant parce que ñoo ay ay ay ay athlètes la ñu. mais Ama Baldé moom masse bi mu yor est mu poids bi mu yor ni man arrangé wu ma bëgguma hmm. parce que gis nga un mètre soixante quinze. su duyee cent trente cinq kilos. bu combat am rombee ñeenti mi day dëpp. parce que xol ba un mètre quatre-vingt-dix mën na am cent quarante kilos day dem yoonam parce que ku nekk cavillon cavillon mënut a am pneu R4 R4 mënut a am pneu bu ne fa mu war dugg dañ ko fa dugal rek bu ñu bëggee jàmmaam tappale mayewul dara ci làmb kon ñaari non combat boobu amul lu ci Modou Lo di perdre wala lu ciy ñàkk maa ngi doon wax kan moo ñemee wax ni Ama moo ëpp doole Modou Lo ñaari yoon kan moo ñemee wax moo ko ëpp kan moo ñemee wax moo gën a waka kan moo ñemee wax moo ko gën a xor ci ay loxo kon jox ko combat bi Ama moo war def lu muy def na gaaw te assuré bu ko Modou contrer làmb ji mën naa yàqu Ama ko combat bu wurtu juum foofu. parce que maay roi des ne nee nga yaa ma doole dama lay jox combat bi léegi say faay man ci laay bëre te Modou ci ay faay lay bëre Modou du song kenn ci day daaw ak gardam di la xool heure boo def mu rempli la moo ko monsieur nu mu ko def bu passé ama pied la jiital Modou jiital pied gauche ama sànni laaw gauche Modou esquive kor ko dóor koy pirkil bàyyi ko mu dëpp kon faay ama la sukkandiku dóor ko ama pied droite lay teg crochet droite bi muy njëkk a sànni muy bi làmb ji moo koy tëj xam nag am yàlla moo ko xam. Ah? maa maa ngi nuyu sama booy yëpp maa ngi nuyu Ndiaye nuy sama fils bii nuyu sama gars yi nuyu Omar ak Sora ñoom ñoom ak Cheikh Ndiaye sama copain maa ngi gërëm ñëpp Mbaye Mbaye Couture Sora borom daara ji yow nga ñëw fii sa gars yi ñawal nga indi gel bi Sora mu ñawal ko baas nga ñëw fii booy ñëw laa daangu ah, yàlla yàlla def jàmm maa ngi jégalu askanu senegal gépp bu fekkee damaa juum noonu dama ñëpp baal wax moo xaw a doy waar rek kontaan naa ci yéen yàlla na yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf waaw